waaw yëpp la ministère bu lañ ciy def moo moo moo lañ def foofu yi waaw ñu ngi koy jëbal loolu si bopp lépp rek euh, ngir jëm sëñ bi nga ne moom nga liggéey rek ñu ànd ko yow ñu euh, ñaan su borom àgg ne ko suñu ëpp waaw c'est am waaw moom alhamdulilahi rabbil gën a yeesal suñu lépp jaayante jiitu ci sadde suñu lax saay fas yéene liggéey ànd ko yéen jiitu ci tegu ci sax dàkk nag ci eh, liggéey sëriñ bi eh, sama waxi taalibe dama eh, sax dàkk ci jaamu yàlla liggéey la ko sëriñ bi sax dàkk ci liggéey sëriñ bi jaamoo ko yàlla waaw ah, loolu foofu doo loolu neexut neexut lijjanti kon bis ni ki maa ngi gën a yeesal sama jaayante di gën a feddali sama laxsaay di gën a feeñal nag sama yéene ji ma xam ne yéen laa sa jiital ak lu ma ci mën a bëgg rek ba ma sax ngeen jiitu ma ci ma topp seen gannaaw dafay euh, tàmbalee mooy liggéey bi euh, mooy Touba ci kanam gi euh, di di di di di di pàggute fu sëriñ Touba jógul fenn pàggute fu sëriñ bi نون ام توفيق لقي له نكو لقي بيه بتكنم لب باغوت اك توفيق لي تيغا خامني موشي سون سون والا مودي لو باري تي دوخينو ادنا لو باري تي لي ويزو تي استوار رك لي مديو waaye nun la nun fii lii liggéey bi sëñ Tuubaa bi la cay suñu jom di suñu gor di suñu positif di suñu yitte lépp nañ ko ci dem nañ ko ci def ci suñu dund gii te faggul ci njaboot gii ñëw ëllëg ñu taxaw taxawaay boobu ba bis biñ ci ba bu mu doon histoire mukk nañ ko nañ ci nekk ba bis biñ ci ba ci kanam sëñ Tuubaa noonu la loolu loolu dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy jóg suñu bopp ba noppi waaw dañuy jóg suñu bopp suñu yéene

seen taxawaay nan ko nan ko def lepp ci liggéey bi di di dox di dox euh, ba suñu dundu jeex ñenn ñeneen wuutu euh, ëpp lu ci ëpp lu ci taxawaay liggéey bi dox di dox di dox ba bi ci ba ci kanam Sëñ Tuubaa loolu lolu lolu lolu loolu loolu loolu dañ koy fas dañ ci jugal suñu bop fasal ko suñu njaboot muy muy muy muy di wéy am naa si yaakaar bu baax a baax a baax a baax fa tabaarakallaahu liggéey bi taxaw taxaway bi mat na seuk rafet na sel na fa tabaarakallaahu lépp nag dama koy daal delloo si nag ci sëñ Abibu mii du du du du du loo xam ne dama koy dama dama koy gërëm ak dama koy dara dama ko jàng ba xam ko xam nga moo ko njëlbéen li xamoon na lépp lu baax la li jot a lépp lu baax xamoon naa ko waaye nag eh, dama ko jàng ba xam ko noonu nanu nanu gën a ci taxawaay fii fii toll nañ ci gën a sant yàlla bu baax a baax a baax gën a sant yàlla gën a sant sëñ Tuubaa ci fàggute bi nga xam ne fàggul nañu ko ak tawfeex jure yi nga xam ne def nañu ko ci sëñ Abibu mi ndax taxawaayam bii du taxawaay nit nit kese taxawaayam nit tëgguma ko waaye waaye seet naa ko piste bi mën na sëkk piste bi mën na sëkk yitte ci réew na lool ngor gi mat na jom ji mat na dogu gi mat na itam lépp ndax delloo na delloo na lépp ci sëñ Tuubaa loolu tëggu ma ko dama wax dama ko jàng ba xam ko ci moom loolu moo tax ne kon liggéey bi xel daal na ci na ci xel daal na bu baax a waaye ngeen xamee ko noonu sëriñ nun nan xool sëriñ bi rek nan xool sëriñ bi rek bu xoolee sëriñ bi rek suñu kem kattan di ko jéem a xam di ko jéem a dund suñu kem kattan eh, alhamdulilahi rabbil alamin du ñee kenn fa suñu borom nan góorgóorlu lu baax sëriñ bi mooy mooy yoonu yàlla amul yeesul bi mooy yoonu yàlla rek sëriñ bi mooy yàlla yàlla rek jox na yàlla jox na yàlla léppam tënul dara boromam sëriñ bi tënul dara lu boromam ak yonent bi ko tegtal ci biir loolu itam gaa yi yàlla yëpp ca malaayka ya ca yonent ya ca gaa yu jox leen seen àq seen diggante jox leen seen àq ndax bokk gi ñu bokk ak moom se seq gi ñu seq seq ak moom seen borom jox leen seen àq ba mu kon sëriñ bi doxin bii da la ma ci yéene mooy eh, nu bokk ci eh, ñi ñoo doxee ci wàmmatug suñu borom ñi doxee wàmmatug suñu borom nga xam ne dara ci seen bopp waaw tàmbale ko ci malayka yi tàmbale ko ci yonent yi tàmbale ci gaa yu baax yi ba ci sunu sëriñ bi ku baax بلا انقطاع ثباته بلا انقفال بفضل منك يا الله كسيخ بابا جنيال توي وللمنتقى المنتخى ترانزيت coono jeex na ci am sa bagage ci biti réew bëgg mu yegg si fii ci réewum Sénégal ci anam ya ngeen ko bëggee ñun ñooy waa Al Muntaha Transit bépp bagage bi ngeen mën di am à l'extérieur quel que soit le type de marchandise dañu la koy livrer à l'espace de 48 heures sunu service fiable na efficace na wóor te gaaw lool te boo ñu joxee sa conteneur dañu lay daal di toppal toutes les procédures douanières profité wu leen gaaw ci seen service Al Muntaha Transit jokkoo ak ñoom ci 33 842 33 09